Monsieur, Monsieur John Oui. Merci. Est-ce que nous pouvons résumer très rapidement votre euh, analyse euh, en wolof nga wax ñu rek discours bi noo ko gisee ak surtout woote président de la République euh, jëm ci élection yi yéen Parti démocratique sénégalais tamit jongante yooyu soxal leen ndax yéen a ngi ci grande coalition Wallu Sénégal. la grande coalition Wallu Sénégal de li mën a wax. Hmm. fépp ci Sénégal am nañ fi ay candidats walanteeru. man dama bëgg bu ñuy xool coalition yi nit ñi bañ a xool ay ay sentiment nañ xool ñu composé coalition yooyu ak seeni ndaw ci gox-goxaat yi grand coalition wàllu Sénégal boo ci gisee l'ancien président Abdoulaye Wade et son parti Mamadou Lamine Diallo un député vraiment qui fait la fierté du Sénégal un ancien premier ministre Abdoul Mbaye le Parti démocratique sénégalais avec l'ensemble de ses équipes, en communion avec l'ensemble de ses partis. il faut citer aussi le professeur Abdoulaye Niang. waaw léegi ban ban taxawaay da ngeen am ba fitna du am ci élection yi ni président woote. non là encore euh, ma madame. waaw c'est intéressant ce que vous venez dire. waaw si wolof. <laughs> Euh, euh, très rapidement dama ne am solo la. Mhm. ndax temps yële rek ñu ngi doon waxaw ma benn. groupement bu doon wër parti pour ñu signer xaw ma la paix. gis nga euh, paix jàmm ci élection. opposition mënu koo indi. Euh, opposition mënu koo sooke mënu koo euh, ñàkk sooke li ma bëgg a wax foofu mooy bu jàmm amee pouvoir bi moo ci dugal loxo bu leneen amee it pouvoir bi moo seetaan opposition amul doole amul kattan indi fitna foo dégg fitna rek xamal ni pouvoir moo bëgg a loo xam ne nit ñu nangu wuñ ko waaye tant que pouvoir respecte na les lois et règlements de ce pays fitna du am ñiy wax ne nañ moytu fitna bu ñu perte seen temps nañ wax pouvoir bi respecter lois et règlements respecter les opposants la constitution di Sénégal moo ne opposants yi presque institution lañ dañ leen a war a respecter constitution moo ko wax hmm. pouvoir bi bu defee lool rek jàpp ne ñooy waaw léegi discours bi nag yow loo ci di perte temps ci ay discussion yu amul njëriñ waaw léegi loo jàpp ci discours bi mënti indi na ci réew eh. munu ko waaw léegi discours bi loo jàpp doxal na jàmm rek jàmm mooy am d'accord leer na hmm. léegi discours bi loo ci jàpp. discours bi daf ma jaaxal ndax dama njëkk a gis ñu ne euh, xaw ma agriculture bi pour pouvoir bi dépensé na ci juróom benn fukki milliards may laaj yéen journaliste wala ñeneen nañ jéem a gëstu ñu xool dans les années quatre vingt dix ba Ablaye dans les années deux mille ba Ablaye di door a ñëw au pouvoir ñu xool ñaata la état bi doon développé doon dépensé ci agriculture nañ xool ay tracteur gis naa ñu bind xaw ma sept cent tracteur moom moom waaw sept cent tracteur boo ko jëndee pour le monde yooyu koo koy jox xanaa dafa am ay nit ñi nga cible ay personne morale ak yooyu yi nga cible ndax ay béykatu Sénégal benn région rek mën naa consommer juróom <laughs> juróom ñaar fukki tracteur kon xam nga loolu caaxaan la donc ba nee naa leen na ngeen gëstu ba xool ñaata lañ doon di ngeen gis ni ay quarante cinquante et soixante milliards environ moom lañ doon dépensé déjà vers les années quatre vingt dix deux mille te temps boobu budget wu Sénégal mi ngi doon nekk avec le parti socialiste vers cinq cent milliards bu Ablaye Wade ñëwee mu yokk ko commencé petit à petit di ko yokk année après année ba bu muy dem presque budget bi mi ngi nekk vers les trois mille milliards donc buñ la nee tey jii nga xam ne ñoom ci seen bopp ñoo ne budget wu Sénégal cinq mille milliards la te ñuy bàkkoo ni dañoo def soixante milliards xam nga loolu wax dëgg doy na waar. Mm. kon population Sénégal ñu ne dix sept million la est-ce que nit njoboo kii ba famille boo yoree benn jabar am ñaari doom wala ñetti doom boo takkee deuxième femme. comment famille bi nag commencé juróom-ñaari doom ne ci biir famille bi ak ñaari kii yow nga doon joxe dépense su trois mille francs léegi nga joxe dépense su cinq mille war ngaa bàkku est-ce que war ngaa dafa jaadu rek. <laughs> da ngaa yokk da yokk ñi war a lekk. moo <laughs> tax nga yokk dépense <laughs> jërëjëf jërëjëf yokk ñi war a lekk yokk dépense. na. yokkaat encore eh, jigéen ñiy laaj xam nga jigéen daa mën a laaj dépense boo yoree kenn ku doon laaj nga indi ñaar ñaar yëpp war a laaj dépense. Mm. xam nga il faut nga yokk dépense bi. ñu ngi lay gërëm bu baax nga bokk ci parti démocratique sénégalais. ñu amoon mbégte lool bokk ak yow waxtaan wi mm-hmm. Jacques jublu woon ci yemale ndax réew mi moom <laughs> euh, dañoo tëddee njaaxanaay gannaaw jël nañu kenn ku fare ci nguur gi loola rek a taxoon ñu dugal keneen itam koo xam ne ci ku jege la nekk bu ko mm-hmm. defee euh, kenn du ne daa am fu nu jeng jëmee alors xam kontaan na mu ngay reer am na ko ko sotle <laughs> <laughs> foofa la ñuy jaaree Jacques foog naa xuus sax ci mm-hmm. wàllu euh, wolof bi ndax itam am na ñoo xam ne wolof la nu bëgg a dégg te itam dab bànneexu askan wi doo nga nu fi teg ma bàyyi la nga tàmbali ak maître maître waaw maître Diouf a waaw xam naa ni tur bi moom moo tax bu ñu waxee maître El Hadj xam naa ni sénégalais yu bëri <laughs> wala bokk ñi féetee ci opposition bi mm. dinañu njëkk a tikke balaa ñu naan kan la di xaar koy wax dañuy dañuy jàppale sama sama doomu baay bi la <laughs> mu ngoog oh. léegi euh, discours bi gis déglu nañ ko mu àddu ci ponk yu bëri diir gi tamit ñaar fukki simili ak euh, ñeent lan moo la ci gën a marqué bon li ma marqué ci discours du président euh, vraiment mooy wax na ay mbir yoo xamante ni baax na lool rafet na lool waaye amul benn njeexantal ci sénégalais yi. Hmm. te man dama jàpp ni njiit li ñuy gën a xaar ci yow mooy ngay def loo xamante ni sax askan daf ciy gis boppam. Euh, sànq euh, suma suma suma frère opposition bi wax na ko sànq. Hmm. ci ci agriculture bi xëy na sax daf may may foofu sax mu xuus parce que bëgguma ci woon dugg. parce que wax nañu fi ay milliards yoo xamante ni eh, man ragal ragal ni après dinañu xool ñoom dinañ ñu expliquer milliards yooyu fan la dugg parce que commune Noto gii ma dëkk nii baykat ya eh, wax dëgg yàlla eh, gisuñu seen bopp ci loolu yaakaar naa ni bu fekkente ni budget Sénégal dañ ko jël li ma gën a jaaxal kenn waxul ni Dakar lañ ko dugal ci kaw lañ ko dugal ci ñi nga xamante ni ñoo moom bay xam bay di bay mm-hmm. bu ñu bayee ba seen saison bi jeex te li ñuy bay mujjiwul fenn lu dul ñuy gas ay kàmb di leen fa dugal vraiment boo taxawee nga bëgg ma wax yenn yi dina ma xaw a jaaxal mais nag du nekk loo xamante ni tout simplement on va imputer ça au président de la république parce que ñun suñuy nguur yi dinañu fort trop di bàkku ci ay budget mais il faut qu'on prenne l'habitude quand ñuy auditer budget yi nga xamante ni moom la ñuy jël parce que lu toll ni askan boo jëlee seen alal nga taxaw assemblée nationale ni jël naa 5000 milliards pour defal leen lii yaa xëy war nga mun a taxaw benn bés nga ni leen lii ma jël kat fii ak fii ak fii laa ko dugal nit ñi xam ko teer bi muy wax wax na ko mu nekk loo xamante ni lu méngoo jamono parce que àddina day dox mhm. waaye xam nga da dëkk soo ko yóbbu da nga ko yóbbu ci pas yi nga xamante moom la méngool tey man jore préféré vraiment à la place de tout ces investitures là xam nga investissement yooyu ñu def yu rafet la yu méngoog jamono la waaye investissement bi gën a wóor bi gën a déggu ci ci ci ci réew mooy bi ngay def ci ndaw yi parce que ndaw yooyu ñooy liggéey dëkk mais bu fekkee da nga jël ay investissement yoo xam ne da nga koo def nga étaler ko ci ay nombre d'années yoo xamante ni yow ndaw yi war a jóg liggéey dëkk boobu presque seen avenir day jël hypothèque ko ci loo xamante ni amul fenn ci benn njeexantal ci biir dëkk bi day day day xaw doy waar lool hmm. discours bi rafet na trop waaye discours la boo xamante ni c'est c'est un discours taillé sur mesure sur les réalisations du du du, du président Macky Sall. Mm-hmm. réalisation yoo xamante ni ba tey jii am na yoo xamante ni war nañ cee mën a taxawaat. parce que <coughs> yaakaar naa ni nga réaliser dara nga ni lii réaliser na ci alal boo xamante ni moomoo ko ay nit ñoo la ko dénk vraiment war nga mën a indi leeral yoo xamante ni. nit ñi bu ñu tëddee dinañu xam ni seen alal fii la dugg. Mm-hmm. mais surtout ci question yi nga xamante ni sénégal yi moom lañ la gën a xaaree. parce que tey jii xamal nañ suñu bopp ni euh, donc dégg naa suma jigéen sànq Zahra mu ni wax na ci panier de la ménagère et tout mais yaakaar naa ni man bokkul ci sama waa koñ. ñu ci surtout ñun njuufeen yi moom gisuñu ci suñu bopp ah, gisuñu bopp xam naa ni bari nañ ci morom xam naa ni ñun dañu gaaw a yuuxu ci kaw rek mhm. mais gars yi yuuxu ci suuf bari nañu trop à moins que peut être xëy na ñoom moom xam nga ñoom traitement spécial la ñuy am <laughs> voilà donc euh, pour wax ni euh, rafet na ne rafetaay bi dafa am fu mu jëm ñun li ñu doon xaar mooy koo xamante ni da nga ñu naan fii ak weer dinañu xool xam nañu ni dañoo jóge ci ay at yoo xamante ni metti na lool réew mi liggéey bi demewul noonu mhm. gis nañu ni borom kër gi sonn borom kër yi sonn nañu ndax mbas mi tax na kenn mënul génn kenn mënul dem waaye dinañu fexe ba def un peu de sacrifice yoo xamante ne au moins ci kaw nguur gi la mhm. mu mën a feeñ ci borom kër yi mhm. man honnêtement parlant pourtant teggi nañu ay taxes daal di subventionné yooyu yëpp pour woyofal affaire yi wala yow yëgoo ko euh, lan lañu subventionné saako ceeb ñaata lay jar dawlin ñaata lay jar hmm. mburu mi mburu bi ñaata lay man yëguma ko non non non très sincèrement yëguma ko ko xam nga c'est pas euh, vraiment man damay wax ni gis nga président bu defee loo xam ne lu jar may tàccu la man je serai le premier parce que dëkk bi ñu ñoo ko moom hmm. il est le président de tous les Sénégalais hmm. mais qu'il fasse quand même des choses yoo xamante ni dafay dem pour l'intérêt de Sénégalais te mu bañ a nekk loo xamante ni dafay nekk pour peut-être xëy na des gens mooy les premiers les sénégalais de premier de première catégorie ak peut xëy na ñi nga xamante ni ñoom la ñu àndal. le benn sénégalais bi nga xam ne dafa nekk ci suuf du ci du ci du ci gis boppam sànq rek apprécier na vraiment monsieur Fall li muy wax ni ñun waa opposition bi lañu mais damay wax ni ñun avant d' être opposant dañu nekk ay doomu sénégalais. Mm-hmm. Sénégal yittal ñu lool nag. Mm. parce que yaakaar naa ni toog ci mbedd di wax di yuuxu ci ci dans le vide. amulul kenn njëriñ mm. waaye su ma sañoon su ma xëyee suma kër ni may génneeg suma oto peut-être xëy na suma xel dal suma ma dëkkandoo bi nekk suma wet noonu lay mel wala su ma dëkk ba la nekk ci àll ba xamul teer xamul dara au moins nga wàññil ko njëgu ceeb bi njëgu déwlin bi wala sama baykat ba bu bayee xel mi dal mm. mu xam ni li muy bay mm. au moins bu paree ci bay bi dina am fu mu fekk dana jar dina jar ko man euh, côté yooyu laa doon xaaree sëñ bi Fall fañ doon xaar président ñëw fa loo cay tontu d'abord di di nuyu euh, bépp auditeur mm-hmm. bu réew mi FM mm-hmm. di leen ñaanal atub jàmm atub wér-gu-yaram mm-hmm. atub euh, soxaliku ci wàllu koom-koom yàlla sàmm njaboot gi yëpp te yàlla may afiya sunu réew mi nga xam ne moom rek lañu am muy Sénégal di euh, rafetlu ci discours bi nga xam ne moom la njiiti réew mi euh, jagleel tey euh, askan wi mu war ci taxawaay bu bu am fulla bu am solo ndax loolu la ñuy xaar mhm. ci borom kër euh, amu ci xaj ak seen je crois que ñi nga xam ne ñëpp déglu nañ ko ak xel gis nañ ne li mu wax dalal na xel yi duggul ci parparloo Euh, wax na li nga xam ne moom la gouvernement bi def ci année deux mille vingt et un mm. waxul lépp sax wax na rek li mu ci mun pour que ñu sentir que ne euh, réew mi am na fu muy doxee donte am na ay jéego encore yu war a defaat. Mm. pour mot li mbir bi. wax na aussi li mu nam def ci deux mille vingt deux mm. euh, ba Sénégal yi gën a kontaan gën a gis seen bopp. ci alal bi nga xam ne tey suñ ko xaymaa toll nañu ci. juróomi. Euh, junniy milliards junniy milliards bu doon hmm. aussi euh, guléet ci wàllu ndëgërlaay euh, bi nga xam ne moom la gouvernement bi def ci wàll boobu. di ci gën a dolli sant yàlla ndax li may li may wax rek mooy que yàlla suturaa nañu ba tey xaalis bi bi ñu dajale ci ci ci keesu nguur gi lu ci ëpp jëmul ci. lu ñuy jënd ay armes lu ñuy jënd ay ay fetal ah pour di xeex pour di xeexoo suñu biir kooku nañ ci sant yàlla bu baax mais sant ci aussi président dara la mag Macky Sall ndax euh, bi mu toggee ci réew mi ba léegi hmm. euh, fi nga xam ne yëpp danoon tàkk am ay daaya rawatina suñu mbokk Casamance yële tey ñëpp d'accord nañ ne alhamdulilahi rabbil alamin hmm. tey ku ci nekk tey am nga sañ-sañ jaabante fu la neex ci biir ci biir Casamance te loolu tamit ñu koy gërëmee sunu sunu soldat si. Mhm. ñooñu it vraiment ñu leen di sargal ci wàll boobu. Euh, leneen li nga xam ne aussi moo ci moo moo ci moo moo ci topp. te mhm. président aussi euh, fegal ko sànq ci ci ay kàddu euh, sama naatangoo bi di sama frère Met Diouf. Mhm. wax na ci ne président dafa waroon bàyyi xel ndaw yi. je crois que loolu moom en fait wax ju en fait. ubbi buntu bu bu kii ba pare xam nga. <laughs> bu tijjee ko ba non non <laughs> bu ubbeeku la. Hmm. comme <laughs> ni ñu koy waxee. parce que euh, tey euh, ku jël tey suñu nee budget bi c'est cinq mille milliards hmm. nga ne jël naa ci quatre cent cinquante milliards. maanaam hmm. jël naa ci chaque année mu jël cent cinquante milliards. jagleel ko ndaw yi. xam nga suñu mbokk opposition yi. ndax ñu man mi doxee yéen nekkoon naa opposition. donc li am solo mooy fu sooxewu fu sooxe rek di nga dégg seen coow. mais soo gisee déglu seen coow ci wàllu programme xëyu ndaw yi rek parce que nit nañ nit niitaat gisuñu lan lan lañ fa war a mun a. Hmm. da nga yaakaar ni ndaw yi chômé ñu. non mais toog toog fii di wax ne que Sénégal am na ay ndaw yu di <laughs> mais soo amoon budget dix mille milliards aussi yaa yi dina am na ay ndaw yu chômé loolu yàlla moom vraiment moo ko moo ko moo ko jël mais je dis aujourd'hui que promesse yi nga xam ne président defoon na ko ca mois de mars discours am bi ne dinaa jël cent cinquante milliards ci année bi jagleel ko xëy ndaw yi. jëlaat cent cinquante si ñett ñetti at mu ne quatre cent cinquante milliards. Mhm. suñ deful cent pour cent aussi def nañ ci quatre vingt dix pour cent. dëgg du dëgg. mais gars yi ñu ne seeni ndaw rek ngeen di jël. non xam nga yëpp ce sont des parce que li ëpp <laughs> ma intéressé. Mm. est-ce que dañ jël ndaw Guinée Bissau dañ jël ndaw malien wala dañ ndaw ivoirien di ko financé wala jox ko ay emploi ñi jël ñëpp nga loolu moom mooy. <laughs> discours bi nga xam ne cest à ku nekk ci opposition da ngay ne ah nguur gi moom ñoom rek lay jël. non monsieur Fall monsieur Fall maa ngi jéggalu coupé wu ma la parole parce que jox naa leen waaye damaa yaakaar ni seen projet yooyu ay projet business la ay projet business la projet business c'est-à-dire vous des gens yoo xamante ni da ngeen di jàpp ni ñoom ñu leen favorable lañu ngeen jox leen seen financement la. man loolu moom waaw loolu. <laughs> waaw wax nga li mu bëgg a wax leer na waaw xam nga loolu moom comme je hmm. dis rek. ça c'est toujours euh, une appréciation de nos hmm. man mi man mi je suis parce que. Euh, ci wàllu xëy ndaw yi euh, am na quand même lu mu ci yàlla mayoon parce que mooy fàttali ne man maa njëkkoon nekk administrateur FNPJ. fi mm-hmm. ñi nga xam ne peut-être ñu ngi fàttaliku. ah jamonoy Mamadou Lamine Keita la wala. non man maay premier administrateur. Mm-hmm. la Lamine Keita a été le ministre Lamine Keita qui est mon frère euh, n'est-ce pas a été un emploi mon employé au niveau du FNPJ. j'étais le premier administrateur du FNPJ temps Ablaye Wade en deux mille en deux mille deux donc vraiment ci wàllu xëy ndaw je crois que. du boobu ngeen ko doon doxalee mais am na lu mu ci xam. mais mais xam nga li am solo mooy. en tout état de cause c'est-à-dire alal ji nga xam ne nguur gi jël na ko ne dama koy jagleel ndaw ñi. tey ku nekk ci parti ku nekkul ci parti man li ma gëm mooy la majorité ndaw ñi nekkuñu ci ay parti c'est-à-dire que tey les militants ndaw ñi nekk militant ay néew na. ñoo gën a tuuti ndaw ñi nga xam ne tey vraiment nekkuñu ci wàllu ci wàllu ci ci ci wàllu situation politique. te xam nga parfois sax dafay doon loo xam ne da ngay tuuteel wala da ngay da ngay da ngay da da ngay néewal méritu ñi nga xam ne dañoo ñàkk jóg def seen projet def seen xalaat ba xëy suba ñu financé leen ñu ci góorgóorlu nga ne leen yow dañ laa financé parce que dafa mel ni que da ngaa xaw a bokk ci nguur gi. Mm. c'est-à-dire que da da ngay da ngay. da ngay tuutal nit. Mm-hmm. à la limite même da nga koy manquer de respect. parce que y' a beaucoup de gens je sais que y' a beaucoup de jeunes y' a beaucoup de femmes qui aujourd'hui ont été financées ñu ngi góorgóorlu loolu ci seen ñax la seen mérite la ak seen ak seen ak seen. président nee na cent trente mille la. donc vraiment c'est-à-dire que il faut que genre discours yooyu suñ koy wax et que que les gens aussi euh, comme li wax nii am aussi savoir raison garder. mais en mm-hmm. tout temps de cause li ëpp solo mooy heureusement que programme yooyu am na parce que su fi amoon tamit. mu gën a metti pour pour pour pour pour pour pour pour pour ndaw ñi. aujourd'hui DER c'est-à-dire la DER est gérée de la manière la plus transparente ku fi ñëw tey wax nañ la ñaata nit la ñu financé ils vont te donner adresse fa mu dëkk lañ ko financé ak la muy def ça déjà c'est quelque chose de transparent c'est quelque chose d'équitable à ce na à pour cent que je ne suis pas là pour pour pour pour prenez la perfection euh, absolue. Mhm. je sais que y a encore. parce que tey mhm. tey jii jeunes yi mérité nañu sax ñu génn mille milliards par an ne dañ koy jàppale ndaw ñi. Mhm. te incha allah rabi ñu ngi si quatre cent cinquante milliards xëy ñu mën nañu weesuwaat ëllëg. dans deux ans dans trois ans ñu jëm six cent milliards. waaw léegi ponk yi ñu doon xaar président nee na te ñëw ci. non yan ponk wax naa la nga sànq. cest à dafa am xam nga déglu. njëgu dund cher gi xam nga discours. nit su ngay def. Hmm. ku ci nekk am façon booy toogee di xaar man lal la discours bi man la moom ci intéressé. yow li ngay xaar. xam nga le Sénégalais lambda bi ngay wax tey. Hmm. kii jógee Kër Massar di ñëw di taaba taaba marché marché Sandaga dugg ci nekk ci embouteillage autoroute nekk ci dagg paas yi. Hmm. wala nekk ci grève transporteur. soo ko ne tey soo jógee Kër Massar ak ba Sandaga di nga def quinze minutes. xam nga kooku am na ci benn satisfaction ci ci ci wàllu boobu. du dëgg na ku dëkk ah, Wakaam ah, <laughs> que xam tamit. <laughs> Mhm. loolu cest dire il faut pas penser que dañ def un projet rek vraiment sur du sur mhm. ñi ko def quand ay Sénégalais lañ ils ont réfléchi xam nañ li ñu def. <laughs> pourquoi toi bi ba def ba ñuy def train bi n'est-ce pas jaarale ko fi nga ko jaaree te te pourtant le train existe depuis 1883. ah am na lu tax mais li ëpp solo mooy tey tey dëgg la TER bi c'est c'est c'est presque une voie côtière mais le BRT c'est une voie centrale ça traverse tout Dakar de Guédiawaye en passant par Parcelles Assainies dugg biir Scat Urbam ñëw sama commune Dieuppeul Derklé dem Grand Dakar ça quand même c'est le Grand Dakar c'est le Grand Dakar comme on dit entre guillemets mm. donc defuñu fii bàyyi ñii daf fekk na ñaari projets yi mënuñu mu en fait. jeexal pare noonu waaw en fait démarré wuñu donc mënuñu jeexandoo en même temps mais man incha allah rabbi je suis sûr et certain que en novembre deux mille vingt deux comme bi ñu ne dañu yaakaar ne BRT euh, <laughs> dina pare mais su paree la seconde doon wax ne à l'an deux mille Sénégal Dakar sera comme Paris mun nañu vraiment en en décembre deux mille deux mille deux mille euh, deux mille vingt deux en matière de transport en matière de d'infrastructure de de transport mais Dakar aussi va un peu friser aussi Paris a ce niveau là et ça dañ ciy gërëm la vision du président Macky Sall. maintenant xam nga comme ñi jonkan am ñi jonkan ci taatu ci ci wërë bi ñoom li lay intéressé cest à du est-ce que ceeb bi yokk na wala yokkul. Hmm. est-ce que xale yaa ngi jàngi est-ce que est-ce que tey essence yokk na wala yokkul est-ce que tel li lay intéressé mooy. kii hmm. fauteuil bi mu toog kañ la ciy jóg. <laughs> ma toog xam nga kooku te kooku ki nga xam ne moom yoon. may na ko wala jotagul pour ñu àpp boobu ñu wax ci yow donc urgence ba ngay am ak moom ba muy am du benn tey aujourd'hui est-ce que véritablement tey su waxee rek la nga xam ne mooy mooy mooy dëgg est-ce que tey la Sénégalais yi seen seen seen soxla ak seen mëbët mooy ku war a nekk candidat en 2024 ak ku warul nekk instant bi ñu toll nii suñu demee ba 2023 Sénégalais yi dañuy commencé waxtaan ah ku war a nekk candidat ku warul mais xam nga instant bi Sénégalais yi lan lañ tal nan la ñuy def. ba sentir koom-koom ci seen dunduwaay xam nga ñu ngi wax tey taayu passé ne mburu bi yokk na luwaay yi eh, yokk nag yokkuwul mais dama leen di jox rek benn exemple et sa c'est le défaut des hommes politiques que mhm. man bokk naa ci biir c'est-à-dire on ne c'est-à-dire on ne on jamais de susciter un débat wala même des polémiques sur les conditions de vie des populations tout les toutes les polémiques tournent autour du processus ah, électoral. ah mais nañ fi pour. Ah, contrat bi moo tax moo tax it ba ñu marché ñu encadré leen juróom-ñaar nit nekk ñu fa. xam nga Sénégalais yi dañu am ay préoccupations xam ki leen amul soxla ak ki leen ak ki nga xam ne dafa leen amalul njëriñ foofu lañ toll tey nous nous les politiciens là on est loin d'être les plus intelligents dans ce pays. Sénégalais tey su yeewoo la muy njëkk def mooy na muy jënd ndékki jox jox doomam na muy joxe dépense jànq bi parce que léegi daanaka mindaan yi ñooy ñu si ëpp ñooy ñooy togg ñu ñu kii leen ñu sargal leen parce que jigéen ñëpp ak góor ñëppay dem góorgóorlu ji tu comprends nañuy def ba sa doom su phénomène jotee nga fay école wala boog mu nekk ci école bi nga xam même si c'est public école boo xam jàng bi dana dana gën a gën a gën a ñoge loolu mooy préoccupation régulière des sénégalais sénégalais yi ñu nekk ci campagne électorale permanente du premier jan pendant cinq ans du premier janvier au 31 décembre ñu wax ci loolu. donc am na ñoo xam ne nag seen fonction seen métier mooy être politicien <laughs> c'est-à-dire que loolu mooy profession bi. sama <laughs> genre yi nga xam ne ñoom c'est-à-dire que li leen intéressé yëpp mooy fauteuil bi sa waay kañ la ciy jóg wala suñu jëmee ci élection locale maintenant maa ngi koy wax ci wàllu ci wàllu ci wàllu secteur agricole. euh, pour répondre d'ailleurs à ami Ngouda, qui semble sa sa se, sa soucier euh, di sort des. des mais. béykat yi waaw. Euh, euh, kii nag nu mu si lëg nag loo ko bañ bañ bañ nangul ko quand ay ay ay ay nopp yu gudd. Hmm. quand même kan la ñu gëj a fii Sénégal ay coow ay ay ay ay ay marche wala ay truc baykat yi nañu wax dëgg rek du ma ne béykat am lépp de am na du am na lu bëri lu des. mais ña ngay sant yàlla. ci effort yi nga xam ne président Macky Sall mi ngi wax ne tey nee nañ dañuy jënd sept cent sept cent tracteurs mais sept cent tracteurs par an soo ko jëndee pendant cinq ans ça fait trois mille mm-hmm. jënd jënd sax cent tracteurs. Mm-hmm. moo gën ba ñu jënd ba ñu jënd dara. Mm-hmm. ci ci wàllu boobu. aujourd'hui ñëpp d'accord nañ ne que li ñuy wax ne la mécanisation nest pas des outils agricoles doon na loo xam ne c'est une évidence au Sénégal. su ñu waxee ay DAC. tabarkalla macha allah dak boo dem tey y' a au moins deux mille à trois mille jeunes ya fa nekk di di di liggéey mieux quand sama frère bi wax na léegi ah béykat yi nga xam ne dañuy bay lu bëri. Hmm. xam nga solo yàlla may ngay bay lu bëri. c'est parce que am na ay jumtukaay yu ñu la jox ak environnement bi ñu la teg ba tax que tu que tu fais une bonne récolte. Hmm. maintenant entre la bonne récolte ak li ñuy wax euh, euh, nu nu tuuti euh, kii écoulement de la récolte y une différence. entre bay lu bëri ak bañ a bay ba pare am am am problème mu jaay sa c'est autre chose et sur ce plan là un très grand projet projet bu mag a mag boo xam ne sénégalais yi je crois que euh, on a encore intérêt à aller voir ça quand le président de la République de par sa grande vision mu créé loolu ñuy wax le marché d'international fan yi passé rek dégg ngeen y avait du ñuy wax benn journée porte ouverte muy marché boo xam ne marché fermé bi gën mag ci Afrique noire xaw ma lu xaw Maroc ak ci kaw mais c'est c'est c'est des plus grands marché qui est sur presque vingt hectares avec vraiment marché fermé boo xam ne ay junniy junni nit n'est-ce pas ëllëg su commencé fonctionner ñëpp ñëpp ci dem marché yoo xam ne cantine bu nekk am nga chambre froide bëriwul li nga koy gis ci ci ci Afrique de marché boo xam ne cest à que lépp loo ci soxla ci wàllu commodité ci wàllu cet ci wàllu modernité xam nga li ñuy li président di wax ne Sénégal dafa Sénégal yi mérité na ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy jox loo xam ne dafa méngoo ak jamono def na ko ci terre bi def na ko ci avion yi def na ko ci ci ci ci université yi mais tey def na ko aussi ci ci wàllu commerçant yi. Hmm. donc tey loolu yëpp ak aussi la garde des porteur mu doon ay xel yoo xam ne dafa am une certaine hmm. ba tax na tey béykat yi nga xam ne tey. rawatina suñu mbokk yi nekk ci ci su su sur la zone des Niayes te sama frère bi nekk fa candidat. Hmm. bon ma koy ñaanal aussi moom ndax yàlla may ndam mais hmm. donte nag bëgg naa moom mu nekk deuxième. <laughs> topp ci topp ci sunu sunu. bu jege conseil municipal dina dina ma ñaanal loolu. <laughs> parce que ma dama yaakaar ni monsieur Fall mi nekkul Sénégal dama yaakaar. <laughs> non non non c'est vrai. parce que il a un peu. Euh, mais xaaral ma ah, daanaka non non c'est parce que. nekk bu Sénégal xamul c'est parce que. Hmm. non yéen a nekk Sénégal. te façon lañ jël seen tànk dem seet la ñu réalisé ci biir Sénégal xam nga man. comme tu dis dëgg la maa ngi je suis conseiller à la présidence mais aussi quand même sama sama sama sama mission mooy dem nemmeeku lan la état bi def ci gox ci yenn gox yi. kon demal pour améliorer la situation de Sénégalais. kon demal nemmeeku sama wàll. léegi nag moo tax ma ne yow léegi nag léegi man côté boobu fa lay daanale yi nga xam te dañ nekk ci sur la zone des ñaay mhm. wàllu jogo wàllu nooto ak xamal leen ne te je sais que xam nañ ko sax. Mm. que président de la République tabaxal na leen jumtukaay boo xam ne marché boo xam ne couvert avec toutes les commodités nga xam ne amatul euh, soble biy nëpp amatul amatul pomme bu yàqu amatul jën bu yàqu. boo xam ne tey y' a plus de trois cent. grands magasins xaaral rek xam nga xam nga olof xam nga olof dafay naan. waaw balaa nga may dig ak jox ma ndékki. moo taxit nag. yéen monsieur Fall non bi non bi sama ndekki Fall bi xala bi añ bu ndul xam nga loo xam ne xam nga émissions c'est tellement intéressant souvent boo ci toog nekk dans l'image Diouf waaw may ko mu daane xam nga li may wax ah, ah. c'est-à-dire c'est pas des en fait c'est pas des projets qu'on c'est des projets qui sont déjà réalisés qui sont visibles. mais est-ce que couvrir na besoin. waaw mais xam nga problème bi. le le le mais non non non monsieur Fall du du parce que moom fi mu nii moom bu commencé tagg bu commencé tagg. Euh, <laughs> du taxaw du taxaw naa jëlal diir nag lim lim taxaw parce que aussi. Euh, il faut li muy wax nii gisoo leen ci sax as tuut. xam nga moom wax na ba wax ay je ne sais pas quoi. Hmm. mais xam nga la vrai problème des des paysans. Hmm. mooy ay problème mu semence. ay problème engrais. ak benn marché boo xamante ni vous l'avez trop mal géré. Mhm. parce que mënu leen bàyyi baykat yi ñu bàyyi li ñuy bay ba pare ngeen bàyyi ay indien ñëw di dugg ci marché bi ngeen bàyyi leen benn fourchette boo xamante ni dina leen naan lii ak lii ngeen di gis nga marché euh, dafa am nu ñu koy réglementé pour nga mën a protéger yow say baykat mais doo ñëw indi nit koo xamante ni da nga koy bàyyi benn durée boo xamante ni moom mën na ci étaler ay bagage am alors que yow taxawaloo sa baykat yi les condition de conservation yi nga xamante ni moo koy permettre moom mu defar ay bagages boo xoolee. mais je pose une question xaaral ma ah, ah, pose la question yow. dama lay pose question rek dafa am ci ci ci wàll boobu cest xam nga yow ci sa waxin ni yaa ngi mélanger yaa ngi mélanger plusieurs sources quand tu parles des Indiens et aussi éventuellement des Chinois ça c'est lié à certainement à l'histoire des des. des campagnes euh, arachidiennes de la campagne arachidienne ou. alhamdulilah rabbil alamin non li ma lay wax ni ça n'a rien avec la capa arachidière boobu maa ngi ñëw boobu peut-être xëy na man ak sama frère Mour Diagne Fada kooku beneen dossier <laughs> kooku beneen dossier <laughs> mais li ma lay wax ni c'est par rapport aux gens qui sont dans la zone des gis na li leen dal daaw ci seeni xaw ma soble yoo xam ne dañu mujjee dem di ko gas yi non nag di ma nag ma président nag mënul jël 24 minutes yow nga jël 30 minutes yow <laughs> monsieur Fall noonu mënut a débat bi jeex na nga xam nga nee na xam nga xam nga nee na paysans yi soo bëggee jàppale xam déglu de. Eh. dafa ne il faut jox leen ay engrais. ah xaaral rek non man yow loolu wax. non dama ni la xam nga xam nga jox engrais ça c'est du du càggi ni da ngay jowul mais il faut faciliter l'accès à ces denrées-là ci paysans yi. parce que actuellement nii xam nga nit yoo xam ne dañoo am problème mu semence dañoo am problème parce que bañ nañ ko dañ la naan man pour wax la. tey jii mais comme problème semence. Hmm. ku am problème semence doo lu bëri bay récolter ba muy des ba nga koy suul. c'est parce que jox nañ la semence. mais est-ce que jar na. bu jar na est-ce que bëri na non est-ce que bëri na mën nga am na ndaw mu bañ a jar. non non non non non <laughs> attention eh, non non non non non attention c'est pas ça. non non je peux comprendre que ñu ne ñoom. Mm. dañoo bay lu lu bëri. te ils n'ont pas pu tout écouler je je peux comprendre ça. parce que amuñu ay jumtukaay qui le permettent. xam nga lu ma lay aujourd'hui le président a construit. xam nga lu may def le marché le plus grand marché le plus moderne en Afrique noire. avec vraiment des centaines muy ban marché. non c'est le marché d'intérêt national. moi je vous dis. mais ana wala boobu inauguré. ah non non mais si. ana yéen mais xanaa quand même. <laughs> mais yéen non mais yéen xanaa nekk nañu. waaw kay xam lu may ku si wujj di sang. monsieur Fall non ku si wujj di sang doo set. non man je suis je un peu <laughs> loin de là quand parce que man damay damay je parle en toute objectivité. daal invité heureusement que le directeur le le directeur le directeur de ce grand marché là c'est un jeune frère invité la yow su ko defee soo demee sa gox fi tu vas demander à tes à tes parents pays à tes agriculteurs que nga may fi nga may invité visiter et constater a une opportunité pour le permettre vraiment de conserver devant xam nga fi fan laa bëgg nga invité ma inchallah sur l'emploi des jeunes laa bëgg nga invité ma parce que man am naa ay ndaw yoo xam ne dañoo nekk sama gox vraiment ay ndaw yu am jom am jom am jàmbaarte façon bu nekk ñu ngi koy def pour am liggéey. Mhm. mais mënuñu ko parce que tout simplement les conditions d'octroi euh, de ce financement là man je je parle en connaissance de cause. d'accord xam nga lu tax xam nga lu tax ma euh, wax je connais un ministre de la République. boo xamante ni moom dafa am équipe bu koy recenser ay nit pour ces projets là. waaw mais xam nga ku nekk aussi ndaw. non say ndaw ci suñu alal ñu. <laughs> Ah, ah. <laughs> waaw léegi ñu ñëw si si si si woote bi euh, hmm. président li mu wax euh, waa biir euh, Sénégal le Sénégal des profondeurs ñu gis seen bopp à travers PUDC et tout mais wax na tamit si élection yi ñu dëkkmal donte sax buggul woon peut-être aborder troisième mandat comme ni ngeen ko doon xaaree Fall nee na da ngeen a jonkan di xaar moo tax. <laughs> foofu rek ngeen ko doon séentu mais élection locale yi yow foofu ban taxawaay ngeen nar a am est-ce yaakaar nga ni élection yu dal mën naa am ak yi fiy doxee ba nii yéen seen leader sax di ci faal waxoon na ni fépp fu ñu rejeté liste Yewwi moom élection moom du fa am wax na ko ci kanamu ministre de l'intérieur waaw xam nga ñun moom euh, dañuy wax ni lépp lu waay di di wut xam nga jàmm moo ko gën hmm. donc ñun lépp lu ñu mën a def ci àddina jàmm ñu am jàmm moo ko gën waaye jàmm il faut que les gens comprennent aussi que ni du benn nit moo koy moo koy doxal. Hmm. xam nga Sénégal gi malheureusement hmm. euh, li olof di wax que ni xamuñu ku tooñ ko fayu la ñu xam cest à dañuy bëgg ñu tey sa loxo ci ginnaaw nit ki di la mbéj naan la noo nekk nañu nekk ci jàmm. xam nga jàmm du yomb am. Hmm. parce que nit ki moom à coup sûr boo ko mbéjee mbéjaat ko bu loxo bi rëccee moom. day day day day fayu xam nga. Euh, comme li nga waxee nii que nit ñi dañoo toog jonkan xaar problème mu troisième mandat man damay wax ni euh, le la question du troisième mandat ne doit pas se poser dans ce pays parce que constitution bi li mu wax dafa leer waruñu sax déglu président Macky Sall ci loolu c'est-à-dire euh, na ma sénégal yi baal ci terme bi parce que dafay mel ni ñàkk fayda ñun constitution bi la ñu war a déglu et non président Macky Sall parce que constitution bi mooy wax ki fi mën a nekk candidat ak ku fi mënta nekk candidat la constitution est tellement claire amul débat amul débat hmm. képp ku ci bëgg a débattre nag xanaa da nga bëgg a débat mën na ko doon mënu ko doon mënu ko doon foo ko teg yow en tant que parce que constitution bi dañuy ni la nul ne peut exercer plus de deux mandats point consécutif de deux mandats de commune kenn dugalu ci durée bi. Ah. kenn dugalu ci durée bi foofu nag. la ah. foofu. mandat am na sax ñoom foofu lañ bëgg a foofu la du foofu la débat bi toujours. di tëjoo ñii naan la gis nga boo jullee <laughs> boo jullee timis ba pare. Hmm. safa kenn ku nekk xam ne ñaari rakka la. gis nga ñaari rakkay safa yooyu. yaa xam Fatiha ak Falek naasi ngay julli mu nekk ñett yaa xam Fatiha ak naa si beneen saa ci beneen ba ci des mais ñaar lay doon les la le le nombre de mandat c'est deux mandats point maintenant nag buñ ko dugalee. ca huit heures fii safa witar la du safa. waaw mais timis mais timis dafa amul witar nag gis nga. xam nga loolu mooy problème bi nag xam nga xam nga timis amul witar. timis ci safa la yem. <laughs> timis ci safa la yem bu fekkee nag da bëgg a julli jee nag nga def ci safa ak witar nag. Ah, safa ak witar waaw bon la rek problème de mandat <laughs> pose pas dans ce pays. waaw léegi ñu jàll ci local yi. local yi maintenant. jàmm euh, mën na cee am. waaw mais toujours day dépendre.

benn liste Benno Bokk Yaakaar rejeté ko ce sont des génies ay génies lañu wala Benno Bokk Yaakaar ñoom liste yi man ñoom wala ay malaaka ñoo leen ko defal ba dara waru ki mën a am xam nga ce sont ces la mooy indi ay wax ëllëg bu ñu ñëwee nag naan leen opposition mos ngeen gis meeting boo xamante ni waa waa waa quoi waa yee hmm. mosul am ñu ni rek Benno Bokk Yaakaar ñu ngi meeting rek waa opposition bi dem nañ tas ko musul am wala ngeen gis benn rassemblement boo xamante ni c'est c'est c'est du camp du pouvoir ñu ni non opposition bi ñoo dem attaqué ko musul am te vous ne le verrez jamais dans la vie mais il suffit tout simplement tey opposition bi rassemblé wu fii ñu commencé génne policie voilà ñoom ñu ngi def lii ñu ngi def lii gis ngeen il faut que les gens soient honnêtes mm. sincères et qu'ils respectent les Sénégalais te ñu arrêté lëndëmal bi ñuy lëndëmal xelu nit ñi naan ay ñu leen ñu signé xawma charte bi kenn mm-hmm. xamul charte bi ah, la dina ko signé président li muy signé xam nga mooy lan constitution Sénégal li mu ñu bindal nañu ko respecté kenn ku nekk cër bi nga am nga moom ko nga doxal ko réew mi nekk ci jàmm man yaakaar naa ni Sénégal depuis ba mu existé ba tey kenn ku nekk xam na ni réewu jàmm la mais il faut que les gens se mettent dans la tête aussi que ni mm-hmm. ñun gënuñu yeneen réew yi gis nga jàmm dañ koy préserver dans dans dans un pays il faut que ñun politiciens yi comme sama frère ni mu ko waxee ñun dañuy souvent dañuy yaakaar ni ñoo moom nit ñi wala ñun ñoo gën nit ñi wala ñoo gën a intelligent nit ñi que ñu bañ a jël Sénégalais yi en otage ak commencer par le président de la République mu xam ni il a été élu pour deux mandats na jeex mu dem xam nga loolu dafay bokk gis nga ce genre de terreur psychologique qu'il mm-hmm. impose aux Sénégalais là mooy dem ba pousser Sénégalais parce que ma yaakaar ni gis nga dara boo amee nit ñi dañ ci war a def jàngat mm-hmm. après ce qui s'est passé en 2012. Mhm. gàcce la ci Sénégal sax ñuy toog fii di wax ay waxi de troisième mandat yu kenn xamul. président bu la république bu gore woon bu toogeen fii si dernier mois yi dafay teel a génn dëkk bi rien rek pour dalal xelu nit ñi wax leen ni damaa bëgg nit ñi ñu nekk ci jàmm te et dafay rafet ko en fait. Mhm. dafay rafet. président élégance la. mu <laughs> génn fii keneen ñëw dem di prêter serment moom mu ñëw fekk ko stade devant tout le monde lëng ko accompagner ko ci liggéeyam. mais dañuy dem ba imposer nit ñi benn façon dundin boo xamante ni mën na ñàkk ci biir réew mi te yoolu yaakaar naa ni nguur nguur jaru ko parce que tey jii eh, monsieur Fall mu ngi nii mën nañoo nekk fii défendre lu ñuy défendre mais si on yi ici nous sommes des amis donc il ne faut pas qu'on soit faux devant les Sénégalais. Hmm. mais nangu nga ni daal yëf yaa ngi dox. <laughs> ñu ngi dox ci ni ñu ko bëggee ñoom. Ah. mais man moom li ma bëggoon moom. mooy sénégalais yi comme ni mu ko waxee kenn ku nekk fi nga nekk. vraiment nga sentir que ni tu es un Sénégalais un vrai Sénégalais et dans son pays nga xamante ni. ci réew mi nga bokk da nga bokk ci réew mi di vivre dignement quand mm-hmm. man loolu laa gëm. waaw xam nga. olof Ndiaye nee na balaa nga xam fu dëkk neexee nga tukki. gis nga su la yàlla mayee nga ngeen génn visiter les pays de la sous-région da ngeen bëgg teel a ñuy seen dëkk toog jàpp seen jàmm. waaw Sénégal. dëgg la coono am na fi ndax li may wax toujours coono moom nit si juddoo rek da nga juddu parce que da war a nekk si coono. Hmm. damay habitude di wax ne nit kañ lay noppalu ko même soo demee nee nañ sax ñi nopp noppalu ko mooy ñi nga xam ne duñ dañoo tëdd la ci Amérique ma ne wóoru sax na xamuñu. ci biir bàmmeel ba ci biir bàmmeel ba la fa xew. c'est pour dire tout simplement que c'est-à-dire euh, euh, bés bu la ba sooy natt sa bopp. nattal ñi nga xam ne ñoom ñoo la tane mais bul natt ñi nga xam ne. yaa leen tane hmm. te si ñun Sénégal actuellement nii foofu la foofu ñun foofu la ñuy yóotu. Hmm. mais ñun fi ñu nattee suñu bopp. non ci ñi nga xam ne ñooñu tane ñu ngi si kam saa ñun on vise les pays développés les pays nest pas euh, comme comment les pays à croissance intermédiaire comme on hmm. dit euh, parce que du xeeb. wala vraiment néewal. Euh, situation économique yi nga xam ne moo wër les états qui sont hmm. dans li mu wax tey suñu suñu waxee ne nañ à part Côte d'Ivoire Sénégal moo ci topp hmm. euh, ci dans li mu wax vraiment en terme de hmm. d'indice de développement demee tey dans la dans la CEDEAO te peut-être soo jëlee Nigéria teg si euh, dans une moindre mesure Côte d'Ivoire teg si Ghana Sénégal moo ci topp mais loolu ñun dañ koy sant yàlla ci en terme de niveau de vie en terme de vraiment de de de de de de, de richesse. Mm. nest pas gis nga euh, ñoom. Hmm. il faut que ñu nangu leen. Hmm. c'est-à-dire que amul benn jiiti réew. bu hmm. fi toog te su fiy dem su fi jógee ne la ma waroon def def yëpp def naa ko. wala objectif mi li ma doon promettre Sénégalais yëpp. def naa ko à cent cent amul. du mag Sall du Abdoulaye Wade du ki nga xam ne mooy ñëw certainement après deux mille trente cinq. Mhm. xaw xaw ma kan la. <laughs> bon mhm. tu vois <clears throat> à tel point que <clears throat> parfois il important ñu delloo si xel yi moi je serais très content chaque jour ma dégg tey benn opposant wala ñu toog ñu ne tey dañuy waxtaan ci condition de vie des étudiants mu jar sax ñu marché ko ñu est wala tey dañuy waxtaan ci condition de vie ensemble euh, de femmes. ma jox exemple. waaw mais femme koy def non non mu doon non non mu doon non loolu du mus loolu du mus am. xam nga ah, parce que tey jii bu ma la génnoon ni na kaay ñi dem nous allons organiser une marche pour les étudiants yow boo génnee président Macky Sall <laughs> wala su waa ab benn bokk yaakaar dañ lay limoger yow. non la police pour ma non c'est que fi ma waxee feneen non je veux dire mhm. que il serait temps maintenant. comme ça se fait dans dans, dans, dans certains pays européens. Mm-hmm. en fait où on dit que de la démocratie tey on constate que il faut avoir un problème de société un problème de... et ça mobilise tout le monde. Mm-hmm. ku nekk wax ci sa xalaat. mais ñun politiciens yi comme je dis on ne parle que du processus c'est-à-dire que rek moo mun. <laughs> fëgg suñu dënn. mooy moo ñu mun indi à lacrymogène. waaye processus électoral nu may def. ba ki fi nekk jóge fi très rapidement. <laughs> xëy na man nekk ci opposition aussi j'avais certainement n'est-ce pas la même la même la la même. <laughs> mais c'est pour vous dire tout simplement euh, nañ ñaan yàlla rek yàlla toujours may ñu suñuy yeewoo ñuy yeew ci dëkk boo xam ne jàmm daf fi am. Mm. c'est important. xam nga sànq maa lay wax ne que euh, su amee ay béykat yu toog ne ñun kat la ñu béy jaay ñu ko. ba finalement dañuy obligé de gas di ko suul am na yeneen dëkk yoo xam ne am na béykat yoo xam ne. amuñu lu ñu suul. amuñu lu ñu suul. <laughs> xaaral xaaral non xaaral rek. mais pas mu bàyyi li sànq tamit moom waxtaan day waxtaan rek waaw loolu comme tu dis li nga xam ne tey ñoom bay nañ ko bëri na seen loxo am na lu ñu ci jaay la ci des ñu ko jaay mënuñu dañ koy suul mu doon jooytu boo xam ne yàgg na ci Sénégal. président Macky Sall jël investissement cinquante cinq milliards tabax fi marché boo xam ne moo gën a mag loolu la ñuy wax nee nañu marché bi gën a mag ci Afrique ci Afrique. soo mais moom la ñuy wax ou bien c'est c'est un marché déjà réalisé. parce que man il faut que man ma xam marché bi fan la nekk. ah il faut ma xam. voilà directeur bi su xaritam la dina la invité ñoo juste non non rakk la moom sama bu baax la tey. vraiment maa ngi profité fii di ah, ko encouragé. ñëpp ñoom la di ko sàggal di ci <laughs> mais marché boobu. dama la ne c'est pas projet à réaliser c'est marché qui est déjà réalisé. mais ñoom gisuñu ci seen bopp. bay bay di suuf xamuñu ko xamu loo xamul lu ci ah, ci communication ci la jëm li ngeen ko ah, defoon ci. déedéet non attention <laughs> attention non sur ce marché précis. je sais que le nouveau directeur parce que c'est le premier directeur c'est une nouvelle structure pour laquelle ñu ngi soog a directeur bu bees tax. mais depuis quand marché boobu. waaw xaaral rek xaaral ci laa jëm. Mm-hmm. parce que moom incha allah comme yow téye mon frère dinaa fexe ba nga dugg fa soo fa génn tey dootoo nekk opposant man <laughs> incha allah rabbi mais mais non man li ko doxee ci Sénégal ma bañ a nekk incha allah mais man moom tant que non je dis non même vous en tant que journaliste mm-hmm. c'est important que vous que que dem visité ko et et puis vous avez donné votre opinion yéen a xam comment vous mm-hmm. appelez ça d'accord donc soo yóbbu encore une fois c'est comme je dis c'est un marché de vingt hectares mm-hmm. a des centaines de de cantines n'est-ce pas entre vingt mètres carrés et trente mètres carrés ou cinquante mètres carrés de de, surface avec vraiment des chambres froides. extrêmement performant. waaw mais est-ce que du ngeen ko joxe après suñu waa dëkk ñu li ñuy bay dañ leen koy non non au il a dit il a dit yi nga xam ne ñoo war a bénéficier wu des services du marché da nga toog ak ñoom waxtaan ñoom les chambres de commerce les groupement sociaux professionnels du monde agricole surtout ñi toog ngeen saytu ngeen seet cantines yi ban prix bu gën vraiment yemamaay lañ ko def ba ñëpp gis seen bopp. non mais monsieur Fall xam yow la waroon jox nga jiite sax. xam xam nga y' a <laughs> tellement de choses nébuleuses dans ce pays. xam nga lan moo tax xam nga lan moo tax président mënul wax. c'est juste à cent mètres. de la gare de Diamniadio soo wàcce da ngay dox président mënul wax lu dal suñu xel amul président mënul wax lu dal suñu xel parce que y a tellement de choses nébuleuses dans ce pays yoo xamante ni bañ ko waree leeral leeralu ko parce que mbas mi bi mu ñëwee dafa ñëw taxawal yépp jël àddinay xaalis waaw mu jox ko nit jox ñëpp ba tey jii ñun xamuñu <laughs> xamuñu dara beneen bi ci des beneen bi ci des non non attends beneen bi ci des ñu jóge fii on a vécu l'épisode je ne sais pas Mambay Niang avec ce, je sais pas Prodac. oui mais ça c'est ba fi mu non non non ça c'est non ça quand même les gens. waaw ouais, mais de toute façon les gens extrapolé quoi il faut. xoolal lu am ak lu amul. man damay wax toujours que ni ñun dañoo nekk ci dem leeral mi la moo tax. xam nga déjà xam nga marché bii. su fekkoonte ni par exemple dafa nekk un projet d'État warul ump Sénégalais yi. mais ump leen parce que on a fait. non ump nañu yow fekk yow xam ah yéen seen marché ba ña marché ba buñ ci gisul seen bopp tam. mais ah, yéen mais est-ce que tu hmm. def xam nga marché a été inauguré en en hmm. janvier avant élection 2019. nouveau directeur a été nommé n'est-ce pas a été nommé en septembre bii passé. 2020 non 2021. waaw mois. donc le 18 décembre bii passé. Hmm. ils ont organisé ce qu'on appelle. la journée porte ouverte. où mais, il y avait mais... au moins 2000 personnes 2000 non, acteurs. non mais marché bu ñu inauguré deux mille dix neuf ma ma daaneel waaw ma ma non may ma ma daaneel fal directeur ba deux mille vingt et un diggante deux mille dix neuf ak deux mille vingt et un baykat yi di fi bay di suur loolu moom jaaduwul non noonu la expliqué nag moo tax ma la xam la parce que parce que c'est un marché international et dont la gestion est très complexe du loo xam ne da nga koy farax-faraxee euh, Fatou hmm. mais bés bu bés bu la yàlla may jot ba ngeen def moom kay boo yóbbu Maître Diouf doon. non yow boobu lan moo tax deful buum comme. bu teer bu teer bi. inauguration marché bi. mais parce que ça comme je dis en janvier mais mais mais def suñu porte ouverte bi passe parce que man j'ai eu l'honneur d'être invité à à marché mais j'étais surpris, mmh. j'étais vraiment impressionné, impressionné mmh. par la réalisation du chef de l'État. Et encore une fois, comme je vous dis, c'est-à-dire, soyons fiers que le Sénégal aujourd'hui a le plus grand marché couvert en Afrique noire. Et ça, c'est à Diamniadio, c'est pas c'est pas à Fongolimbi c'est à Diamniadio c'est à c'est à 100 mètres je serais may baykat maa la koy ci seen bopp leer na <laughs> kàddu yu mujj ndax nañu deux de temps moom kay léegi ñu ci vingt quatre minutes président de la république jëloon <laughs> mais amoon nañu amoon nañu mbégte lool dalal leen macha allah euh, sëñ bi Diouf comme yow lañ njëkkoon jox kàddu ñu bàyyi la nga tàggatoo waaw di sant bu baax ah, di leen euh, remercier E di beral uh, remerciement spécial suma suma grand frère. Mm-hmm. suma suma mag vraiment may koy yóbbante nuyu ci suma jigéen. Mm-hmm. ni ko na ma ko nuyul bu baax maa ngi koy souhaiter aussi. Uh, samay meilleurs vœux mm-hmm. pour cette uh, nouvelle année di ko ñaanal sénégalais yi di wax ni sénégal suñu sénégal la amuñu lu gën a rafet dëkk bi amuñu aussi lu ëpp dëkk bi président de la république nag moom wax na wax boo xamante ni que mu nekk dëgg ci moom ou mu bañ a nekk dëgg ci moom ñun sénégalais yi nañu am full ak fayda loolu mu nekk suñu dëkk. Mhm. mooy que mu nekk dëkk jàmm. Mhm. que ku mu mën a doon. honnêtement moi je pense bien que ni li nga war a œuvrer du jour au lendemain dans pays dafa war a nekk jàmm parce que jàmm la ci lépp xej mhm. te ñun suñu première richesse li ñun nit ñi yëpp nawee ci àddina bi. mooy jàmm boobu kon nañu fexe ba ñu sàmm ko mhm. ñu bañ ko yàq ci benn côté yeneen yi ci des yëpp c'est des détails yoo xamante ni mën nañ ko rattraper après mais lu mu mën a doon daal na lépp nekk ci jàmm mhm. ñuy ñaan yàlla également au soir du du du du du 23 janvier euh, les pilleurs de la République si je peux les ainsi ñoom ñu ñu abal ñu tuuti. Mm-hmm. ñu ñu commencé liggéey dëkk bi. donc am na ñoo xam ne ci ci ci gox ba des na. <laughs> ngeen yeewi askan bi ñu yeewi askan bi <laughs> monsieur Fall moom moom xamal na boobu ni moom il est un peu attaché. daa yeew askan en tout cas daal au soir du du janvier soxla nañu daggiti buum yi partout. ñu mën koo dajale. am nu ñu def ak. Euh, ñëpp yeewee ko ñëpp yeewee ko quoi. waaw sëñ <laughs> ah, ñu leen di yeewi ngeen tàggatoo. waaw xanaa rek di. di rafetlu jotaay bi. Mm. di remercier sama frère ah sunu rak Ahmed ci yar bi ak tegin bi. Mm. ndax euh, Sénégal ñoo ko bokk comme ni wax. Mm-hmm. benn bopp la kenn mën ko xam ñaar li wax ne koo koo frère rek di nga yeewu suba dem jaale ji ko. Mm-hmm. du dañ toll ci jamono boo xam ne suñu réew mi euh, dëkk yi ko wër euh, daanaka musi yu bëri. ay musuba yu bëri dañ dañ fa nekk mm-hmm. ba tax na loolu yëpp ku nekk ñun ci ñun war nañ ci bàyyi xel mm-hmm. ba fexe ba taal boobu taal dëkk yooyu daay bi bañ a egsi si ñun mm-hmm. te loolu responsabilité individuelle ak collective surtout nag rawatina ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci homme politique yi di wax sénégalais yi ne euh, nañu continuer ñu def confiance président Macky Sall ndax euh, man bi ko jegee xam naa ne euh, président bu bugg Sénégal la c'est-à-dire xalaatam yëpp ak jéegoom yëpp nu muy def ba euh, teg fi loo xam ne parce que benn nguur amul amul nguur bu lu jeex nguur yàlla rek moom mënul jeex. Mm-hmm. diir bi ak àpp nag kooku yoon moo koy yoon moo koy tënk mais ku ci nekk moom bëgg na la tey bés bu demee ñu ne ah Macky Sall kat lii moo fi def Sénégal Sénégal jóge na ci situation A jëm ci situation B te am na yar bi am na teg am na xam-xam bi te loolu rek lay def suba ba ngoon te loolu aussi. te li li li maam Abdoul Aziz baax doon wax soo nekkee ci bato da ngay yàlla capitaine bato bi yàlla may ko jàmm may ko xel bu dal ndax mu mën a gën a mën a tey bato bi. Hmm. te tey foofu lañ toll Sénégal ñu ngi koy gërëmee. Hmm. président Macky Sall di ko encouragé ci wàll boobu. Hmm. di ñaan yàlla vraiment euh, waxtaan bi mu doon waxtaan boo xam ne mun nañ ko di di di gis. ci diggante. Mm-hmm. les acteurs politiques. Mm-hmm. et kujje. waaw ci waaw. surtout ah, jamono ji nga xam ne mm-hmm. moom. parce que vraiment je crois que euh, li may wax toujours rek. tey euh, tali bi su yàqoo ñëpp la yàqal su baaxee ñëpp la baaxal. damay wax toujours nit ñi ne euh, am na loo xam ne suñ ci war a liggéey su dee def nañ ci liggéey bu baax. na ñëpp ne lii baax na ga gongo parce que su dee tey da nga am dëkk boo xam ne dafa lënd moon nit ñëw samp sa samp samp lamp lamp buy tàkk lamp bi du tàkk su dee nitu nguur su ñëwee mu tàkk. su nitu nguur rombee nitu opposition mu fay xam nga mën wante nekk hmm. donc loolu yëpp dafa doon loo xam ne njariñu askan bi la hmm. ba tax na daal maa ngi ñaan yàlla euh, ci foofu lay daanelee yàlla doolu sutura hmm. yàlla doolu jàmm ci Sénégal yàlla may ñu aafiya yàlla euh, yokk mën-mën yi ak ak ak poche yi ba lépp li nga xam ne njaboot gi parce que ñu ñëpp njaboot moo ñu tënk ndax njaboot mooy sunu mooy sunu mëbët yàlla yombalal ñu ko te vraiment li jëm ci wàll aussi fajukaay yi hôpitaux yi yu baax yu rafet yi nga xam ne def nañ ko ci juróomi hôpitaux yi ñu amaat yeneen juróom muy fukk rawatina polyclinique bi nga xam ne tey moom la ñuy tabax ci hôpital principal muy hôpital bi gën a xarañ daanaka ci ci ci sunu sunu Afrique. pour wàññi am polyclinique ba nga xam ne lañ doon fay ci ay millions ak ay milliards di ko ay ay malades loolu ko mun ko fajee Sénégal loolu tamit doon na loo xam ne lu am solo la. Mm-hmm. li wàllu cancer centre bi nga xam ne moom la moom la Sénégal di tabax. Mm-hmm. muy centre national d'oncologie nga xam ne. ñu bëri dañ doon dem Tunisie wala dem Maroc wala dem France di faj ji ñu faje ko fii loolu yëpp aussi ay jumtukaay yoo xam ne nañ ñaan yàlla mu sotti mu egg. Hmm. ba yàlla gën a dëgëral suñu wér gu yaram ndax ndax balaa ngay eh, fekkee dara da koy tal. Hmm. te yàlla mu nox yàlla nga koy def vraiment di remercier aussi la rédaction de Rewmi FM. Hmm. di remercier sama frère. Mbagnick qui est mon qui est mon ami qui est mon frère. c'est un grand plaisir mu ñëw tey dugg ci euh, rédaction këram gi waaw ak euh, sénégalais yi à travers vraiment sa ce ce ce ce cet studio. Mhm. Ah, di ko sargal di ñaanal aussi yéen ñi nga xam ne yéen ay njaboot gi fii. Mhm. yàlla euh, dool leen sutura. Mhm. Ah, yàlla yokk teraanga bi. ah euh, barkeel seen liggéey. ba li ngeen ciy yoonu li ngeen ci yootu yàlla na ko yàlla def. Mm. jërëjëf euh, monsieur Waly Fall kàddu yi rafet na conseil spécial ci président Macky Sall nekkoon maire Jëppal bokk ci Benno Bokk Yaakaar feggoo woon ak maître El Hadj Diouf national chargé des affaires juridiques bu PRP di avocat bokk ci kon itam Yewwi Askan Wi Jacques. Mhm. amoon nañ fi itam ay intervention madame le ministre Zahra Iyane Thiam ak Ngouda Dione. Mhm. bu parti démocratique sénégalais ñoom ñëpp ak ñu doon déglu ñu leen di gërëm. mu ngoog waaw ni nga ko waxee rafetoon na waxtaan lay surtout ku ci nekk euh, am na sa position am na li ngay défendre et puis mm-hmm. avec des arguments solides mu nekk euh, lu am solo te dégguñu fi coow mm-hmm. maître El Hadji Diouf yëpp bu ñu meloon nii xam naa <laughs> dina law en tout ñu leen di gërëm bu baax ci seen disponibilité ak pertinence bi mm-hmm. di la gërëm Fatou di gërëm Elisabeth Diatta mi mm-hmm. newoon ci rédaction bi ak euh, équipe bi Mass Thiam newoon ci bi ak lewoon leen di gërëm ñoom ñëpp leen ñaanal atum jàmm atum naataange bu ànd ak xéewal bu barkeel jërë ngeen jëf ci ànd bi ak Rewmi FM ngi ci kanam sax ndax yaa ngi togg programme bu am solo waaw ñu xam nga ñu ngi dem 2022 yàlla dafay def day door ak euh, benn boum ak élection yi ak Coupe d'Afrique ngeen ma jégal tuuti ma jëlal leen deux minutes parce que tey dama xaw a sacrifier suma xale yi ah. nekk commune Noto ah. parce que dama waroon a nekk ci porte à yi Eh, vraiment waaw bien sûr <laughs> parce que tey bu dul woon yow mënoon naa ko kii mais xam nga nekk aussi ay xale uh-huh. ñu ñu topp sa gannaaw vraiment di ci investir uh-huh. matin midi soir euh, vraiment yi neexul dala fet mm-hmm. parce que man su ma sañoon Euh, nga ànd ak ñoom ma ànd ak ñoom fu ñu nekk ñu nekk ci. Mm-hmm. ci mu nekk xale yoo xamante ni benn xale bu tudd Arfan Bass jiite leen. Mm-hmm. ñu boole ci pas-pas boo xamante ni mais surtout ce tout surtout impressionné. mooy seen yar ak seen teg. ah dina fi jaar de yow. ñoom dañu kii <laughs> non xam nga ba léegi waxuma dara. mais xam nga loolu aussi ça fait partie de la promotion de la paix. Mm-hmm. parce que dañuy xale yoo xamante ni bañ nañ ko ba balaa ñuy jóg. on se dit que ne bu leen saaga nit mm. bu leen xas nit bu leen sosal nit bu leen xuloo bu leen xeex c'est mois le candidat bu ma nit lu ma nit mën a wax mun naa ko supporter mais l'essentiel que les candidats qui sont là viennent faire face avec moi on fait un débat d'idées ñu discuter ci programme mm-hmm. maa ngi leen di gërëm Euh, di leen sant di ñaan yàlla monsieur Waly Fall bis bu ñu jaa bu ñu gagné élection yi. moom mm-hmm. certainement dina ñëw commune Noto. Mm-hmm. Euh, mu indi ci camion frigorifique yooyu. Mm-hmm. pour baykat yi am lu conservé kon mbokk yi parce que lu ngeen jëf mbokk yi programme bu bees Rewmi FM di leen ko toggal euh, kon nag des leen ak ñun fii la yëf yi nekk Léo jaa jëf bonne heureuse année nos meilleurs